ma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 seydina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmaina assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ixwat al imaani wal islaami wal ixsaani wal iraadati ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di julli ci yonentem boobu sallallahu alayhi wa sallama di leen ndokkeel di leen ziyaare yéen waa M Média groupe Nourou Daarayni ak mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp di ñaan yàlla subhaanahu wa taala ñu suñu rëcc-rëcc te nangu ñu suñu jaamu yàlla di jaay seydna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ñi war rek ci liggéey bu sell bi ñu yàlla boole di mboole mbokk yi nga xam ne yi yàlla defal na leen tawfiq ba ñu nekk ci biir liggéey bi muy góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi ak kilifa yi ci biir yëpp ak euh, borom xam-xam yi ci biir euh, suñu kilifa yi nekk ci biir ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi waaye tamit suñu soxna yeeg suñu rakk yeeg suñu jarbaar yi ñépp daal euh, ñoo ngi leen di ziyaare di leen ndokkeel di leen xamal ne <clears throat> Euh, ñoo ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax di jël niyya boobu ak ziar boobu rek di ko teg ci loxol suñu kilifa gi ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké euh, mu jot luñu ko mbooleem ñu nu seqal liggéey bi rek waaye tamit di ko ñaanal yàlla gën ko bàyyi ci suñu kanam may ko kàttan ak wér ak fekkeek tal ak xiwal yi koy njortam ba lu mu bëgg a liggéeyal maamam ja rek ak Cheikh Balla Thioro Mbacké yàlla may ko lu koy njortam ca loola te nu ànd kook moom bi jay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallama kon tey dañu dellu siwaat rek ci kattan nga yàlla subhanahu wa taala e, di jéem a tabbi ci liggéey bi rek su ko defee li nga xam ne lii moo fi rot tey ci ay laaj laaj bi jiitu mi ngi jóge ci mbokk mi sëriñ Moussa Ndiaye mbal mi suñu mbokk la ñoo koy ziar bu baax a baax di rafetlu ab taxawaayam wax dëgg yàlla ak bëggam lu baax sëñ Moussa moom dafay laaj ne xukkumu euh, sëx wi xablal iqaamati maanaam ki nga xam ne kii dafa dafa dem di bëgg a julli waaye laataa muy liqaam maanaam njëkk muy liqaam dafa am ay njuumte la wax xam naa laaj bi defe naa man loolu laa ko déggee su ko defee bu fekkee ni noonu la laaj bi demee dëgg comme ni mu ko waxee ne maanaam li xaamagut waaye am na ay njuumte ndax foofu am na leen lu ñu fi war a def dañ ko naan laa sujuuda li sahwi qabla al iqaamati maanaam nit ki daal bu fekkee ni dafa ñëw jublu ci julli te taxawagulut taxawalagulut julli ga maanaam li xaamagut daal foofu benn njuumte boo xam ne bii bu ko fa defee day séq ak julli gi dara ndax boobu duggagut ci julli gi ndax euh, xañ na yéene moom mooy jiitu euh, ndax euh, bala ngay liqaam sax xam nga kon yéene ja moom day mel ne dina faso bu fekkee ni julli gi ngay julli moom ràññee nga ko rek xam ne julli sangam ngay julli defe naa yéene ja day daal di tàbbi waaye defe naa féex liqaamagoo lenn loo xam ne ni def nga ko lu bokkul ca julli ga wala loo loo wax te bokku ci julli ga booba njuum te amagu ndax loola séqagut ak julli ak julli ga dara ndax julli mu ngi tàmbalee ci liqaam fi nga liqaamee yaakaar naa yéene ji wax ne yaa ngi koy nattam nattable ndax ndax yéene nga wala def nga nangam dangay ngay liqaam ba pare yaakaar naa di doga fasaad yéene ja kon daal dañ ko naan daal maanaam jéem liqaamagoo daal moom foofu moom lu fi mën di xew ci wàllu loo xam ne dañu yaakaar ne luy waral njuumte la daal foofu maanaam bu bëkkee ne am na fa it maanaam séqut ak julli ga dara njuumte daal ñu koy tàmbalee ci ginnaaw bi nit ki li xaamee ba dugg ci biir julli gi daal foofu la ñuy xool euh, njuumte fay des def ñu de ko doo ko xool ba xam da koy sujootal bala muy sëlmal wala mu sujootal ko euh, ginnaaw bu sëlmalee waaw ko defee daal laaj bu am solo la daal waaye daal loolu dañ ko ci wax rek ne ko noonu moom li xam moom fekk amagut daal euh, julli gi moom euh, duggagoo ci kon lu am ci njëkk liqaam daal moom loola séqagut ak julli gi dara dañuy bàyyi ba nga dugg ci biir ba nga liqaam ba dugg ci biir julli gi nag ñu daal dog ne dañ lay topp ba xam boo defee njuumte lan moo ca war beneen laajam bi ci toppaaw te itam day laaj xokk mu sëx wi fi nafli maanaam sëñ Moussa ba tey mi ngi laaj ne waaw nit ki bu fekkee ne jullik euh, naafila lay julli bu ca juumee ndax julli googu dana ko sujootal wala déet waaw dañ ko naan euh, assahu fi nafli ka sawi fil faridati yusjadu lahul xabliyu awil baadiyu inda sahwi waaw waaw maanaam ki nga xam ne kii day julli jullik naafila su fekkee ne da caa juum juumte yu tolloog la ñu waxan ci day waral sujuudu sahwi su boobaa euh, juumte yooyu da koy sujootal kii naafil la su juumee ci julli yokku ca day sujoot bu sëlmalee ba pare su fekkee ne dafa juum wàññi itam ba muy waral ab sujoot day sujoot balaa sëlmal kon daal euh, sujoot boobu ñu war a sujoot ngir ak juum ci julli daal bu dee julli farata la dañ koy sujootal bu dee julli naafila la yi tamit euh, dañ koy sujootal ñooyam rek ab atte benn lañu beneen laaj bi ci toppaatit ba tey muy sëñ Moussa Ndiaye dafay wax assahu fi salaatil janazati mu ne ndax bu fekkee ni dañuy julli jullee am néew jullee am néew julli googu ne ne ndax am na sujudu sahwi wala déet foofu tam liñ koy wax dañ ko naan sujuudu sahwi xayru mashruin fi salaatil janaazati maanaam jullib néew amut sujuudu sahwi ndax gis nga jullik néew moom amut kari fatiha amut kari aw saar amut rukoo amut sujuud amut sëgg dañuy taxaw rek maanaam jullik néew ay kàbbar la ak ay ñaan yoo xam ne yii koy toftal di ko teg ci kàbbar boo kàbbar rek teg ca ñaan ko nga xam ne gii moom la ñuy ñaanal néew bi nga xam ne bii moom la ñuy jullee kon jullik euh, jullik euh, néew amut sujudu sahwi ndax ay sujud amu ca ruko amu ca kon euh, ay allahu akbar rek nga xam ne saa boo waxee allahu akbar da nga cay teg ñaan ko nga xam ne gi moom ngay ñaanal néew bi ba ca boo kàbbare ñeenteelu kàbbar ba nga daal di ñaanal mboolem jullit yi nga xam ne yii dañoo nekk barsax ak yi nga xam ne yii euh, demaguñu barsax loolu lay wax ne faman naqasa min salaatil janaazati takbiratan amdan batalat wa in tarakaha sahwan xatta sallama yuidu salaata wa yukabbiruha in lam yatul al faslu euh, jullig néew daal ne soo ca wàññee ab kàbbar bu fekkee ne yaa ko tey wàññi ko julli ga day yàqoo da nga koy julliwaat waaye tam su fekkee ni kàbbar boobu da nga ko bàyyi ngir ak njuumte la ba sëlmal tamit ne ne e, kàbbar nga bàyyi ngir ak njuumte la te bàyyi nga ko ba sëlmal doo ko ne yow kat am na kàbbar bàyyi bay tey su boobaa da ngay baamu julli gi waaye tamit su fekkee da nga bàyyi kàbbar ci biir julli gi fàttaliku ko ko ci biir danga nga koy dabaatal maanaam bu fekkee ni weesoo goo rakka foofu nga xam ne fii fa nga toll boo ko fanle ko maanaam da nga koy eh, kàbbaraat kon daal jullit néew nii lay deme mooy dees ko sujjóodal sujjóodab njuumte waaye dane la ku ca wàññi benn allahu akbar bàyyi ko te yaa ko ca jublu su booba moom julli ga eh, dafay yàqu da nga julliwaat geneen julli waaye tamit ku ca bàyyi ab allahu akbar ci ak njuumte ba sëlmal dana itam julli googu itam dootul baax dangay ngay baamuwaat julli ga waaye tamit koo xam ne gi ci biir julli gi da ca bàyyi ab allahu akbar su boobaa maanaam su soo ko teelee fatleku da ngay kàbbar kàbbar boobu rek daal di continuer ak sa julli euh, néew nga xam ne kii moom lañuy ñuy julli. yeneen laaj yi ci topp al oustaz Serigne Aliou Badara Ndiaye moo ko fi yónnee laaj bi ci jëkk nag. muy lu aju ci wàllu alquranul karim mu yónnee fi ab aaya boo xam ne bii day laaj daal ñu defal ko ci ak leer maanaam wàllu lu mel ni tafsir xam naa kon lu mel ni lañ ca xam ci suñ kémtalaayul xam-xam rek lañ cay wax incha allah muy aaya bi ma bëgg a jàng auzu billahi min alsheytan rajim wa ida jaahum amrum min al aw il xawfi asaau walaw radduuhu ilallahi wa rasuli wa ulil amri minhum la alimahu allazina yastanbituunahu minhum walaw la fadlullahi aleykum wa rahmatuhu lattabaatum sheytaana illa xalilan aay bi daal la ne moom lay sàkku daal ñu def ko ci ay leer waaw aay bi day lenn loo xam li mën nañ ko ci leeram muy di tafsir dañu ne wa iza jaa haula allazina lam yastaqir al imaanu fi qulubihim amrun yajibu kitmaanuhu mutaalliqan bil amni allazi yacudu xayruhu ala al islaam wal muslimina aw al xawf allazi yulqi fi qulubihim adama al itminaan afshawhu wa azaaw bihi fi nnaasi aay bi siñ badari laaj dafay bokk na ci sababu si la ko tax ñu wa lu mu wàcc ne nañu euh, ci naafeq yi moo tax aay bi wàcc loolu lay wax ne jumhurul ulama yara anna hadihi ayata nazalat fil munafiqina boroom xam-xam yi ñu ci bari daal ne nañu daal aaya bii mi ngi wàcc ca naafiq ya xam nga naafiq moom ay mbiram dafa xaw a yéeme lool li muy wax ne ñi nga xam ne ñi maanaam seen a ngëm maanaam matut maanaam ay naafiq lañu daal dañoo melan noo xam ne nii su mbir masaa am maanaam muy wax nag ñaari mbir ci aay bi muy bu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu masaa yebale saxaaba yi ñu dem di xare ji xare boo xam ne bii moom sayduna muhammad du ca bokk ñi nga xam ne ñii ay naafiq lañu maanaam su mbir amee moo xam ne nii kóolute la maanaam dañ ne sax maanaam bu fekkee ni jullit ja dañoo gañe wala ñu gañe leen maanaam am na ñoo xam ne noonu lañ ko jëkk a waxe ne ñaari mbir yi mooy bu jëkki mooy al amnu bi muy kóolute mooy bu jullit ña gañee mooy am nañu kóolute am nañu mbégte naafeq yooyu dañuy daal di yàkkamti ñëw di ko tasaare di ci jiitu yonente ba walla ñu gañe leen aw xoli bu wala ñu gañe jullite itam naafeq yi dañuy yàkkamtee ñëw ba xabaar boobu ñu di ko wax maanaam firikat yi daal ñenn ñi daan noonu la ñu jàppe aay bi ci ne ñaari mbir yi nga xam ne moom la fi tudd te mooy jàmm di sécurité di kóolute wala muy safaan ba doon lu naqar doon aw tiis ñeel jullit ñi euh, dañ ne lu ci masa am rek ñoom na féq yu dañuy yàkkamti dem di ko wax te ne nañ li war mooy mbir mu mën a doon ci ñaar yooyu mooy xam sécurité la di jàmm ñeel jullit ñi wala safaan ba muy aw ay loola lu leen neexut dal leen dañoo war ne tekk maandu ca ba xam lan la ci kilifa gi wax muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax nag mooy ki nga xam ne kii moom moo yore mbir yëpp kenn waru ko jiitu ci dara nga xam ne gis nga sax fa la ca suuratul xujuraat yi yàlla nga cay wax ne yaa ayyuhal lazina amanu laa tuqaddimu bayna yaday illaahi wa rasulihi yéen ñi nga xam ne ñi gëm ngeen daal bu leen jiitu yàlla ak ab yonentam ci menn mbir moo xam ne mi dafa am wala jenn wax joo xam ne ñi dafa am kon lii ma wax ne bu fekk ne nag ñoom ñu ngay jëfandikoo ndigal loolu nga xam ne di ñu moom lañ leen digal su kóolute amee wala safaan ba am ci jullit ñi maanaam dañu naan cell maanu noppi ba xam lan la ci yàlla yi wax ak ab yonentam loolu tax mu ne bu fekkee ni mbir moomu dañ koy delloo ci yàlla ak ab yonentam ak euh, boroom xam-xam yi daal la doon gën ci ñoom ndax ne ne bu boobaa ñi nga xam ne ñii gëstu nañ ko bu fekkee ni yonente ba néew fa ñi ko gëstu ca boroom xam-xam ya dinañ xam ban taxawaay la ca war a amee li taxan maanaam mu limu yàlla day ndigal loo xam ne li ci yàlla la jógee jaar ci yonente bi wala ñu mun ne ñu delloo ko ci Seydina Mohamed xam nga loolu mooy jamono ñi nga xam ne bii Seydina Mohamed moo fa nekk ñuy war a dellu ci moom ci wàllu kooku waaye tamit li tax mu wax ulul ilmi euh, ulul amri muy boroom xam-xam yi nga xam ni ñoom ñooy boroom xam-xam yi fiq borom xam-xam yi lislaam di ko jàngale ne ne ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoom la julli ci ulul amri xam nga ne kon loolu mënta ñàkk ulul amri mënta ñàkk ndax borom xam-xam yi. ñooy ñi nga xam ne ñi maanaam ñoo fi wutu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne atte yooyu nga xam ne yàlla da ko doon wàccee day continuer ba kera àdduna di tukki te gis nga sayyidina Muhammad nekkatu fi kon gis nga bu ji tuddee yàlla mooy ndigal li ci yàlla lay jóge waaye itam tudd ci sayyidina Muhammad maanaam ñu war koo delloo ci moom mooy jamono jam fa nekkee waaye tam mu tudd ci borom xam-xam yi nañ ko delloo ci borom xam-xam yi loolu itam da ngay gis ne kon borom xam-xam yi mënuñu cee ñàkk ndax ñoo fi wuutu sayyidina Muhammad ci wàll nga xam ne gi maanaam moom la doon taxawee ci di atte lépp loo xam ne rek maanaam mooy moom la lislaam di doxe kon daal loolu lenn la ci loo xam ne lii ñiy firi alxuraan euh, wax nañ ko mi ngi ci laajaat sax suñ badaw ci ne ñan ñooy ulul amri mooy li ma wax foofu ci biir rek ulul amri mooy ñi nga xam ne ñi boroomi xam-xami diine islaam lañu nga xam ne ñooy taxaw lislaam ji ci wàll ga nga xam ne gi moom la ci Seydina Muhammad doon taxaw te gis nga ko booy xool dangay xam ne kon ñoom kon mënuñoo ñàkk ci lislaam bi ndax ñoo fi wuutu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallama beneen laajam bi ci topp dafay wax xukmu sujudu sahwi al baadi yi al xabli yi wala aksu suñ bada dafay laajal ma tey ci wàllu jëm ci sujudu sahwi mu ne waaw ki nga xam ne kii dafa waroon a sujjuut baada maanaam dafa waroon a sujjuut sujjuutu seef yi waaye ginnaaw bu sëlmalee la ko waroon a sujjuut mu sujjuut ko balaa sëlmal wala mu waroon a sujjuut sujjuutul xam li muy sujjuut balaa sëlmal xaar ba sëlmal doog a ndax loolu mën naa nekk walla déet waaw loolu mën a nekk la yàqut ca sujjuut ba dara dañ ko naan mën sëha zaada fi salaatihi sajada baada salaam wa man naqasa sajada xabla salaam wa ida sajada ahadahuma makaana al axari ajzaahu zalika waaw ñi jàngale fiqh dañu ne koo xam ne danga nga juum ci julli dolli ca da ngay sujjóot boo sëlmalee ba pare waaye itam koo xam ne da nga wàññi ca julli ga da ngay sujjóot bala nga sëlmal nee nag ñaar yooyu bu ci am muy da nga sujjóot boo sëlmalee wala nga sujjoot bala nga sëlmal nga jaawale ko sujjoot benn ba ca euh, palaasu moroom ca ne ne loolu yàqul sujjoot boobu maanaam boo waroon a sujjoot baada sujjoodal ko xabla baax na boo waroon a sujjoodal xabla sujjoodal ko baada daal yenn ci fuqaha baax na sujjoot ga baax na yàqul ca sujjoot ba dara beneen laaj bi ci topp te yaakaar naa mooy bi ñu fi mujj jotagum sëñ Njaga Thiaw moo ko fi yónnee kon laajab sëñ Njaga Thiaw boobu laaj bu ama am solo la mu jëm ci wàllu miraas miraas moom dafa doon loo xam ne lii alxuraanul karim moo ko tëral charia euh, ñëw maanaam leeral noonu ko alxuraan tërale teg ko ci ay sartu yu wér yoo xam ne ci la war a doxe su ko defee wàllu miraas tey kon laaj bi nga xam ne bii moom la ci tàbbal te mooy doom jooju nga xam ne jii maanaam bi muy sosu ñaari waajur yi ñoo ko seq maanaam boobu maanaam charia dagana la gut seen diggante maanaam dañoo njaaloo ba am ko loolu lay laaj doom jooju ñu ne dafay dégg ñu ne euh, moom mu warut a donn te mësta fekke daal fu ñuy miraase ku mel noonu muy laaj ndax kooku su fekkee ni baayam da ko nungoon ne doomam la yor ko di saytu ay mbiram ba faatu ndax bu boobaa ne ne kiy miiraas du sañ-sañam donale ko loolu lay laaj loolu lañ ko ci tontu mooy doom jooju bu fekkee ni dañuy dundu charia di dox ci charia maanaam wërta donn dafa bokk ñi nga xam ne ñi maanaam euh, waruñoo donn seen waajuru góor woowu ndax sharia lim teg mooy doom jooju bi mu amee maanaam sosowut ci lislaam maanaam nekkul doom ju sell joo xam ne ji sharia day nangu ne kii ñu ko wax baayam la ndax amu cab seereem maanaam mayen nañ ko soxna sa laata doom di ci am kon doom jooju moom euh, sharia du maye benn yoon maanaam muy doon lu baayam waaw bu ko defee nag jéem sharia moom mooy tegi àtte di teg la nga xam ne lii moom lañu ñu war a def maanaam amul kenn koo xam ne kii doomu aadama nga ak loo mën a am ci xam-xam maanaam ngay juyoog loolu nga xam ne lii moom la sharia wax kon ki nga xam ne kii day miiraas te ñamuy miiraas doom ju mel noonu nekk ca daal du am sañ-sañam ne kii kat jëm baayam lu ngoon na ne mooy baayam te moo koy doon di ko toppatoo day doon déedéet loolu kenn sañu ko ndax kon da ngay daal di xëccoo ak charia charia dafa ne kooku wërta donn moom mu muy miraas ñëw ne kii daal jëm nii la demee kon na donn loolu kenn waru koo def waaw doom jooju wërta donn bokkul ca miraasam baayam loolu muy wax ne dafa mësta fekk nag fu ñuy miraase ko mel noonu ah, man mi de moom li ma fas yéene mooy miraas muñ may miraas bu ca doom ju mel noonu nekkee Euh, dina leen leeral la nga xam ne ni nana miraas ma nar a war a amee dina leen ne loolu moom wërta nekk kooku mënta euh, du donn su fekkee ni d'accord nañ ci ne kooku du bokk ci miraas mi su booba man mirage miraas dina ci dugg waaye su ma ko proposé sàkku ko ci ñoom kooku day bokk ci miraas man su booba man miraas mooma dama leen seet leen keneen ku ko miraas waaye man duma ko mën a miiras loolu it mës na ma adu def miiras boo xam ne bii noonu la demee nga xam ne doom ju mel da caa waaye dañ ko lijjanti bañ ne kon moom mën naa bañ a bokk ma doog def def boo boobee loolu moom man mii dal na ma am na miiras boo xam ne bii noonu la demee waaye dañ ko lijjanti bañ ne kon moom dinañ seet nu ñu négocier ba mu bañ a bokk ñu doog a tàbbi ca miraas moomee miraas ko kon daal doom jooju daal charia doonuloo ko kon amul menn mbindeef boo xam ne ni maanaam man nga ko doonuloo bu doonulu sax loo xam ne ni dëppoo na ak charia jërë ngeen jëf ñoo ngi sant yàlla subhanahu wa taala di julli sunu dem boobu sallallahu alayhi wa tawa